waljinni waddajjaali wassuudaani fi lsharqi walmagribi walbiidaani wa sharri maa fi lardi turran wassamaa min zaahirin wa baatinin iktatamaa yaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil aamir jamiicanaa bi lutfika aljamiil wa kullana qud li najaatin wa falaax wa wafiqanna li sawaabin wa salaax wa tuxnina bi fiali ma axbabta wa takfina an fiali ma abgadta wa la takun mubtaliyan minna axadu dahran bima laysa yutiiqu yaa samad ñu ngi nuyu imaam ak mbokk yi fi teew yépp di baalu àq tey baale àq di sàdd nag kàddu yu néew rek ay ndénkaante suñu diggante ak bopp ak fàttalante ci dëkk bi ñu nekk muy Touba ak sëriñ bi ñu yaakaar te amuñu loolu moom te léppam di yiw léppam di jàmm léppam di mucc te réew mi toll nag foo xam ni fitna dafee yow fitna nag sun borom dafa rëbb ko yee waxan tam na ngeen moytandiku fitna da ngeen ko fekkal seen seen ñooñ ak seen bopp ndax fitna moom mooy tax mooy mooy yóbbu ne sawara fitna nag bari na ci jamono jii te kii sañ dëkk bi bi mu nekkee ci digg ay bokkam fa mu àdduna muy Mbàkke Bawal ba aw nar faa am ci diggante taalibe yi ngir jëwrinam ji mag jooja nga xam ni mooy Cheikh Ibrahima Fall joxoon sëñ bi jéppi orma gëm ko wóolu ko doyloo ko fam tegoon sëñ bi bëgg ñëpp teg ko fa te lam gis ñëpp gisuñu ko ba taxoon ñu koy jàmbat ba mu agsi ci sëñ bi ndax lam leen di woon metti ci ñoom ba ko sëñ bi yegee dëkk bëgg a tuxu dani ñaar tuxu moo gën ab dëkk tuxu fa la jógee dem Darou Salaam sanc ko muy dëkkub jàmm di kërub jàmm ma defa sanc këru xam-xam muy daaru alimul xabir sanc daaru manaan sanc tuubaa sanc daaru xudus yépp ngir bëgg jàmm rek di jàngale jàmm di ko wax di ko yéene di ko jëfe jàmm ku ko bëgg wi waxul waxaan lañu wax dee ko di ko wax di ko jëf ñaar ñu ñaar ñaar ñaar ñu ànd ngir ëdd nag te xulowuñ xeexuñu xëccoo am na ko ci wax dëkk ñaar ñu àgg ngir yàlla itam de xuloo ak a xeex am na ko ci wax dëkk boo seetee tariixa yi yëpp mosoo gis kilifa yi di xeex lu fa am ci njaboot gi rek lay doon ay wax ak kii waaye mosoo gis ñu xeex wala ñu toyante yi bopp loolu lañ bokk di ko wut mu yàlla rek a tax te yàlla yorub téeréem ñu ñëpp di ci sukkandiku di ca dox moo tax jooy nag mënta ñàkk wute wala ye sola nu maxtali fi ne ma raxm jooy mënta ñàkk wute mënta ñàkk waaye dañ ko àggale foo xam ne dafa àggut ndax bu ñu demee bay reye ak yenn yu ñaaw yi ci réew mi moom mën naa ñàkk te quatre-vingt-dix pour cent yi di jullit te ku rey nit te tey ko moom faj sa oo jaxanam rek suñu borom wax ay nag koy woote doo am jàmm te làngu noonu lu koy xatal mooy gën lu ko yàkkale ndax boo amee benn noonu mu tuxu dem fële ku la mer di dem tuxu ne foofu bu yàggee foofu doonu dëkk te bu doonee mbooloo buñ la fexee gañe la kon lii xew ci réew mi muy ñaar ñi xëccoo ngir ki jiite réew mi mooy rek jàmm ji su ko bëggee yéene ko di ko wax day am jàmm ñim jabootam day am jàmm te nag bu bu amee jàmm bu njaboot ñim jabootam amee jàmm rek mu am jàmm waaye nag fii nit ñaa ngi ci fitna dañ lay gën a bañ di la gën a xeex di la gën a noonu toog nag kilifa day jëlale day jéggale day baale di bàyyee muy kilifa ak diine muy kilifa ak réew li sëñ bi bëgg ci dëkk bi muy jàmm muy yiw muy juboo muy sécurité ba tax muy yëkkati ay kàddam di ko wax saa su ne ñi ko jiitu woon doon ko dox moom agsi fii nañ ko dimbale ba yàqoo ci noonu waaye képp kuñ ko dénk itam te nga yëngu ci loolu am na melo woo xam ne moom nga war a weel am na noo war a doxe ndax yonent bi dañ ko yónnee muy yërmaande yi ñëpp sëñ Tuubaa wutu ko di yërmaande yi ñëpp ay xulafaam wutu ko di yërmaande yi ñëpp dëkk bi dëkk yërmaande la dëkk xéewal la dëkk teraanga la kon nag li fi sëñ bi bëgg di ko dox dañ ko war a dañ ko war a waaye kuñ fi jox responsabilité am ngay digale ka tere responsabilité Seydina Omar yoon kenn yoru ko ci ndax moo nekkoon amirul mu'minin ñetteelu xalif Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bëgg gi mu bëgg lu baax ak bañ gi mu la bañ lu bon daan tax bu guddee day jóg di wër mbedd dëkk bi seet ñe nakay def naka sudul noonu am na bis nag muy dox borom bu genn kër goo xam dañ koo miir mbooloo nekk fa di tox di kar di naan sàngara dégg coow la waaye meram ak bañam lu bon tax mu ñëw rek yéeg ci miir bi dugg ci biir kër gi daal ne gaa yi daje ñoom ña ñu ne ko daal Seydina Omar suñ tooñee yoon yow tooñ ko ñett yoon in xata naa mara waaxida fa anta xatata salaasa marra suñ borom dañu wala tëjee sa soo bu leen yëdd te yow da nga noo yëdd bu weertan xayri bu yëttum xatta tastation ngeen di dugg ci jaar leen ci porte ba yow jaroo ci porte da yëg diisoo leen da yëg wax wa atul bu yee tamit abwaabiha te it yàlla yónni na ku la gën fuuf ci ku la gën a ku ñu gën a bon fuuf wa amaruhu bi laqad ba'asa llaahu man huwa xayrun mink illaa man huwa sharrun minni wa amaruhu bi rifqi fa qulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yazzakkaru aw yansaa Firawna Muusaa ak Haaruuna ku ne xam nañ ñoo gën Omar ndax yonente lañ Firawna mañ ko yéesee moo gën njaboote moo gën moo moo gën a bon ñëpp waaye boo ko yàlla war na ne ko nanga dal te tey wax ak ñoom ndànk ndax ñu tuub wala ñu jéem kon nag lépp lu ñu def nañ ko def ci dal nañ ko def ci sëriñ bi ñu amul luy moom li mu woote ci yërmaane la ko woote ak jàmm ak xewal kon nag su ñu defalee trang bi ñu ne ci dëkkam la bëgg nañ koy bëgg la muy bañ nañ koy bañ nañuy joxante ceen ngi jëmi sëñ tubaa nit waaye nag sëñ dafa defal lu borom lu ko kenn deful mu fam njariñ yi yëpp jox ko muy njariñ lu ànd ak lor moo tax ñu topp ñu daw ko waaye daa am yeñ ba tax lërut kenn kon dëkk bi ñu nekk ni ma ko waxan muy dëkkub jàmm dëkkub xéewal réew mi itam jàmm rekk fa rek ndax ku am kilifa yu todd ku mel ni Sëriñ Tuubaa mooy koo xam ne ñëpp a gis nañ jëfam ñépp xam nañ fi teg tànkam ak njabootam waruñoo xëccoo waruñoo xuloo waruñoo xeex waruñoo saagante ku leen ci xëcc ba wóol itam lor nga leen lor nga sa bopp ndax fitna moom ko ko ko woo mu ñëw ci sa bopp danga lay teg kon ki jiite réew mi ñu ngi ko ñaan mu delloo si xelam kii ñuy xëj kii itam fi nekk nga xam ne mooy moom lañ jàpp ni moo indi ay wi hmm? moom itam na delloo si xelam bañ a yee fitna ñuy waxtaan déggoo ci jàmm ko war a ko war a toog toog kóotu toog dem lii daal may wax jëm ci bëggoon a sànni sant mbooloo mépp di fàttali nag fii day këru suñu borom jàkka ji day day day néegu yàlla ñi ko fi def itam di ahlu xasida di yëngu ci xasida di ci xëy di ci gont ñu di wax jàkka soxna asukaan nañu koy wax soxna njaboot ak sëñ Tuubaa ñu koy liggéeyee nii rek muy néegu yàlla takku tabaxal yàlla kër mu tabaxal la ci àjjana kër kon nag ñun ñëpp war nañoo dugal suñu ñàq gannaaw bu ñu siyaaree sëñ Sidi bi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa fii jataay bi ndax mooy imaam bëgg naa daal kenn ku ne boo mënee teewal li nga ci def ci jàkka ji mu teew soo ko mën itam nga digg ko wax da sàngam di ko jox man nag incha allah danaa joxe danaa sosoo dix tonnes incha allah fas na ko yéene joxe ndax ataamuroon naa si biir wa tan saw na an fuskum kuy dégg lu baax da nga ciy jiitu kon maa ngi sant gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf wahab lana axza alladi aataana wa tarkama an fi'lihi nahana xatta yakuna kullana fi lxarakat muqtadiyan bi sunnatin wassakanat wa najjina bi jaahihi min daawa wa takfi anna kadiban wa lahwa wa takfina alhawa wa ma la yaani wa bika daban aghnina ya mughni